asalaamaaleykum jël si waat nañu seen chaîne bi nga xamee ni moo di MF info ñu leen di sant bu baax a baax nag ci abonnement bi nga xam ne yéen a koy def leen di jaajëfal également ci participation bi ak ni ngeen di abonné massivement sant nañ leen bu baax a baax a baax alors tey ñu ñëw ci li nga xam ne mooy lu def waxu te lu ay di jàmbat mooy journée bi nga xam ne dañ koo jagleel journée sans presse fii ci biir Sénégal gi nga xam ne taskatu xabaar yi te man ci laa bokk ñoom seen bopp nag ñu ne dañuy toog daal. lank ci talaata ji na ñoom du ñu génne benn lu jëm ci walu xabar légui nak loolu dafa laaj jangat ndax tam journée sans presse c'est pas la première fois ñu def ko ci bir Sénégal c'est pas la première fois ñu def ko ci régime régime bi nak nga xamni mi ngi doog ak ci ñent wër yalla ak fan mom nak dafa tambali yeey ñu ne waw journée sans presse mu mel na nak xex bi il faut ñu délo ci suñu xel ndax xex bi amna na ñoo xam seen yoon nekku ci ñu bëgg leen ambalé amna lu xew waxna ko te dama ci délo ci wat taskatu xabaar yi nga xam ne ay journaliste lañ leen nga xam ne ñoo nekk ci rédaction yi seen yoon nekku ci problème bi li nga xam ne lu def waxutalu ay bi jàmbat am na ñu nekk ci gannaaw te ñooñu ñooy puus ñooñu te seen xeex la woon boo xam ne bii démb ak bërki démb bi nga xamee ne ñu ngi leen di jox ay millions yi millions yi millions yu dul jeex kenn déggu leen woon te taskatu xabaar yi nañ xam ñaar ci convention bi nga xam ne moo ñu boole ñun ñëpp am na ci yu ndaw yoo xam ne liñ leen di fay du dara amuñu benn contrat boo xam ne bii ren ci suñuy liggéeyee defal nañ leen ko fu mu di CDI ay CDD yoo xam ne sax léeg-léeg na muy demee sax bala ñu la kaa defal da nga daw bay bëgg a dee te la ñuy coppati da la ko jox lu tuuti la problème bi problème patron de presse yi la du problème mu taskatu xabaar yi nañ waxante dëgg parce que régime yi fi jaaroon yëpp am na loo xam ne doon nañ ko def aide à la presse bi nga xam ne dafa daan ñëw am na nu mu daan tëddee d' accord kenn ku ne am nga kenn ku nekk am nga sañ mais li xew mooy bu fekkente ne bu fekkente ne problème impôt la wala ñu ne dañoo jàpp ne dañuy programmer pour la mort ci presse bi loolu programmer la mort de la presse loolu ay waxi waxi xale la kenn programme wu fi lenn loo xam ne lii régime bi amalu ko benn intérêt pour muy programmer la mort ci benn presse ak yu demee noonu la nañu waxante dëgg ñu nekk ci gannaaw ay kilifa lañ yoo xam ne dañoo ubbi seeni kër wut ay personnel di leen fay ba noppi tamit lañ daan domp xam ne moo di seen impôt ñu lànk na duñ ko fay bu def ko ci seen i ba mu nekk ay millions ay su fekkente ne régime bi fi jógee bi président Macky Sall dafa am ñoo xam ne daf ko épongé woon baaloon leen ko loolu ci boppam c'est anormal parce que li tax normalul mooy am na ñoo xam ne nii ñi ngi jaay gerte caaf dañuy fay impôt clinique yi dañuy fay impôt bitig yi bitigu mbagg yi jaay ci mbedd bi yëpp dañuy fay impôt pourquoi kon ñun tey jii ñu dema dem ba mu yàgg la tax dañ doon fay ba nga xamante ñu ngi ci seen gundaandaat millions yi di dugg ñu leen woon dara kon tey jii bu ñu demee ba nga xam ne gars yi ñëw nañ ci kaw régime bi ànd ak ñoom Ousmane Sonko ñu ne da ngeen di fay impôt comme ñëpp gis la gis ba natt ko xam ne lii du yoon ñu ne ah léegi nag waaw dañoo bëgg a tas taskat xabaar yi dañoo bëgg a rey seen kër yi parce que dañoo kii suñu contrat de publicité yëpp tëj nañ ko mais parce que lépp too fayt wala wala wax problème bi foofu la nekk mais nekkul problème boo xam ne bi globalement c'est un problème de nañu dellu si suñuy xel yi man ab taskatu xabaar laa comme yéen bokk ci yéen nekk ci rédaction yi tàmbale ci rédaction yi nekkoon nostalgie xam li xew ci nga xam ne mooy rédaction yi firiwul na nag yéen amu leen sañ-sañu waaye nag itam contre ak jaxasewaale presse bi bëgg a jaxase ñëpp boole leen ci combat bi combat bi am na ñoo xam ne seen yoon nekku ci parce que bañuy lekk seen ay millions ñu leen di financé di leen jox alal di ñu jeex fenn fa am ay bâtiment sa bulletin de salaire génn ñoom ñu ne ko ko ba noppi tamit lañ la doon dagg duñ ko versé comme ni ko président Diomaye waxee dama ne loolu nañ ci dellu siwaat bu fekkee problème boobu la comme neex na nga garaw waaye garaw bi da xam ne yoon nekku ci beneen bi ci tegu ba mu yàgg ñu négocier ba mu yàgg ñu bàyyiwaat ko waxuma sax ay problème Pape Alé ak yu demee noonu ndax booba xëy na def tuddal nañ affaire bi Mansour xeex ko ñaari fan ñett fan nen mais ñun groupe Sud booba dañoo tegoon benn bande boo xam ne bii le rebelle Salif euh, Salif moom la ñu tegoon fi 2004 2005 Ousmane Ngom était ministre de l' intérieur ñu jàpp sama rajo bi na ko ràpp tëj booba ana ana presse bi jamono yi nga xam ne lu baree baree bari bi nga doon am fii kii sama xarit bi nga xam ne moo di Serigne Saliou Gueye jiite yor-yor bi ñu ko jàppee fii di ko yóbbu di ko yóbbu dikk ñaadam ñaadam ñaadam la wax teg ci suuf parce que booba ana ana ana presse bi ana bi ñuy daaneel ñu baree baree bari. fii naan gazé leen presse bi yéen taskatu xabaar nañ leen sànni ay gaz benn préfet bu nekkoon ci Dakar mu fab ay lacrymogène wax force de l'ordre yi ne dóor leen ko taskatu xabaar yi ñu dóor leen ko kooku dañ ko defal promotion na may ko mu nekk benn gouverneur ci benn région dama ne nañu delloo ci xel yi jamono ba muy neex kenn waxewu ko woon nii buñ dikkee ba tey jii nag ñu ne léegi waaw régime bi régime bi defu leen dara Ousmane Sonko defu leen dara ku ku nekk dans un pays normal li nga xam ne moom la charte réew mi wax da nga koy def ñun taskatu xabaar yi on a souffert dans les rédactions on a souffert il faut qu'on se dise la vérité di di di monter di monter di monter ba yàlla indi fii ñu indi nekk dama dama ci rédaction yëpp ngeen laaj département de presse yi lan leen war a fay fay ñu leen ko CDI pour nga xam da ngay daw ba bay bay bëgg a dee ñuy def reportage daanaka am na ci ñoo xam ne transport mar sax duñ leen ko jox dama ne problème bi xam ngeen lan la xeex la boo xam ne bii xeexu ay nit la yu nekk ci gannaaw di pousse presse bi nañu waxante dëgg ñooñee nag am na loo xam ne dañ ko daan am démb bërki démb mënatuñ ko amati xulil xaq walaw kaana ala nafsika xulil xaq walaw kaana murran lu mu dëgg li mu nekk nekk nekk dëgg nañ ko waxante man ci taskati xabaar yi laa bokk ci corporation bi laa bokk waaye xam nga lii mbir tey mbir mooy xeex bi du xeexu taskati xabaar yi de xeexu patron de presse yi la ñoom ñoo dem ba mu yàgg ñu ne gouvernement bi daf leen a bëgg a xoj fan la leen gouvernement bi di xoje ban intérêt la gouvernement bi di am pour xoj ay ay ay presse am ak yu demee noonu li ci gën a deesi nag boo waxee ñu ne woy Ousmane Sonko te moom rek moom moom moo ci gën a weexu donc moom Ousmane Sonko dafa bëgg a def ni xii dafay fayontoo Ousmane Sonko fayontoowul dafay appliquer la loi avec le gouvernement de Diomaye cette loi nag am nañu fi nekkoon ñoo xam ne dañ ko doon koy fàññee de tout bord loolu mooy problème bi comme neex na nga grève ah comme neex nga grève bañ a bañ a bañ a mais li Walf Fadjri def na ñoom dañu grève te Walf Fadjri ñoo leen gën a nekk victime ci régime yi nga xam ne jaar nañ ci yëpp mais dañoo xam ne xeex bi du seen xeex bi xeexu ñeneen la du suñu xeex ñun taskatu xabaar yi nga xam ne ñooy bind wax ak joxe information ña nekk ci kaw nekk ay patron de presse am na ci koo xam ne ci ban ko fi waxee barki dem moo ñaa dafa ne mënumaa fay mais su fekkente ne tey jii ñoom dañoo wax ne bind nañ jomaay waaye mënuñu ñoo yegg ci jomaay parce répondre leen son emploi du temps bu fekkee dafa chargé mais nañu dañu def délégation dem dem ci inspecteurs yi wax leen na wala ñu dem ci ministère bi nga xam ne moom lañu dénk wàllu communication ne ko kët gisaguñu jamaay waaye tel ak tel ak tel waxal ñu kon président da ko ñun lii nañ ko fay jamono ñooy mais di def grève def sa édito daal dina léegi moor programmé fan lañ ci pro kan moo ko programmé xanaa kon kay ñu nekkul ci yoon ñoom ñoo programmé leen propre mort dama ne Ousmane Sonko defu leen dara gouvernement Diomaye defu leen dara te grève bii ngeen di grève itam c'est pas la première fois ñu def ko mosuñu fee def grève de euh, journée morte boo xam ne bi presse bi du génn ba affaire ba réussir à cent pour cent suba Walfadjri dana liggéey ci talaata ji am na ñoo xam ne tamit ay journaux yoo xam ne tamit danañ génn waa témoin ñoom ci seen bopp rek sànq rek ñu may xamal na may ñoom danañ def danañ def communiqué bu mag wax na bokkuñ ci garab Mamadou Mamadou Mor Ndiaye maa ngi koy nuyu di ko sant bu baax a moo jiite te mercredi dana def édito xam le ne grève bi du seen grève ñoom grève am na ñu nekk ci gannaaw Mamadou Mamadou Ndiaye moom ma ko wax te kooku borom jom la borom fit la nekkoon ci ci régime yi xam leen bu baax a baax mais moom bokkul ci grève bi wal fajëri bokkul ci na organe bi ma bokk ñoom danañ solidariser wu am nañ mooy grève bi amul benn sens amul benn sens su fekkente ne contre li nga xamee ne moom la ñoom Ousmane Sonko ko wax loolu ay ay ay wax la que fii presque lu nekk daj nañ ko fi daj nañ ko fi ci jamonoy Ablaye Wade ñun ci suñu bopp Sud FM ak Sud groupe Sud communication ñu nekk ci victime jamonoy Macky Sall ñu nekk victime Ablaye Wade dem na ba nga xam ne dafa ne dafa tere bépp a génn ci fu mu doon jëm ci groupe Sud communication boobu ana gaa yi beneen bi ci tegu le président Macky Sall amaa mu fi jóge lan la deful presse bi laa la wax ni ñoom Pape Alé Niang d' ñu daal di génn daal di génn monstre nangam ak nangam xeex ko Serigne Saliou Gueye ñu delluwaat ko mais c'est que torturer leen d'une tëj wal fajiri nangu licence am defatu ko fi defatu ko fi ba noppi taskatu xabaar yi ku génn ñu dóoral lacrymogène dama ne xeex bi ñeneen la xeex bi patron presse yi ñoom ñoo daje am seen ay problème yoo xam ne fay seen ay impôt su fekkente ne loolu la dañoo war a fay impôt comme ni ko Sénégal yëpp di ko fayee su fekkente ne du problème impôt nan dem waxtaan ak gaañi waaye nag du raison nga naan du raison nga naan jamaay euh, bind naa ko tontu wuñu nangam ak nangam ñoom ci seen bopp ñoo dugg ci loo xam ne ni ñoo ubbi seen ay entreprise entreprise yooyu nag bu sooxee bu bu taskatu xabaar yi ñoom patron de presse yi la te yéen ñu koy wax ñëpp yéen journaliste yi aide à la presse bi ngeen daan dégg fan la daan jaar ci yéen ñeneen ñi dañ compal ñeneen ñi dañ koy dégg ñeneen ñi sax dañ ko far gis dama ne affaire bi bu lee politique ci dugg nañ waxante politique Ousmane Sonko defu leen dara gouvernement bu Diomaye defu leen dara la nga xam ne moom lañ doon dénoncé 2018 bi foofa la ñu toogoon ne leen ñun li ngeen di def d'accord ñu tey d'accord ci ëllëg ëllëg ban ko tàmbalee dingat ñoom Ousmane Sonko bàyyiwul ba ñëw ci pouvoir bi doog a dingat lu mel noonu kon dama ne nañu delloo si xel yi comme neex nag ma rab je le répète comme nag nga grève mais grève bi du am benn sens parce que du yëngal gouvernement bi fenn te sax am na ci loo xam lii am na ci presse yoo xam ne sax waay waay ndokk ba xam bu ñu génnul lan lay jariñ gouvernement bi ak lan la leen mën a wàññi lan la a il faut ñu xam ne mbir mi xeex bi avant ñoom Ousmane Sonko di ñëw la am na ñoo xam ni avant Ousmane Sonko ak ñoom Diomaye di ñëw lu ñu am yàq nañ leen ko yàq dañ leen ko doon yàq ba léegi delluwuñ ci gannaaw fan nekkoon démb bërki démb taal seen i rajo taal seen i journaux bind ci biir journaux yi lu nekk ñu xas ñu ko lu nekk ñu wax ñu ko tas taskatu xabaar yi nangam saaga si Ousmane Sonko wax leen mu jël pouvoir bi ànd ak ñoom jomaay ne lii lañ bëgg a doxale réew mi suqali réew mi ne wooyu parce dañoo bëgg a rey nangam ak nangam parce que ka fi nekkoon dama ne qulil xaq walaw kaana ala nafsika mbir mi nañ waxante dëgg taskatu xabaar yi nga xam ne ñoo nekk ci rédaction yi di bindi daw ci bedd yi bay bëgg a dee paas sax bu yore matuñu bu mat yoruñu ko ñoom seen yoon nekkul ci xeex bi ambaale nañ leen nag yóbbaale leen mais jaaraama waa Walfadjri gi nga xam ne ñoom suba dañuy liggéey jaaraama jaaraama waa le quotidien témoin bi nga xam ñoom neen ci suba dañuy euh, buñ génn suba dañu am problème imprimerie dañu am problème imprimerie mais ñoom nee nañ mercredi danañ def édition ñoom bokkunu ci garab yi bokkunu ci tey xeex bi seen yoon nekku ci ñu koy xeex xam nañ ko xam nañ ñu nekk ci seen ginnaaw loolu mooy problème bi man nag li ma li ma man ci sama coobarey bopp su lépp dépendre woon ci man dekk def naa koo xanaa ko sax ci rajo bi kon kenn duma njëkk tey ji pour dem defi information parce que lii du garawu dara kenn jàppuñu fi benn taskatu xabaar ban taskatu xabaar en ce moment moo nekk ci kaso bi ñaata taskatu xabaar ñoo nekkoon ci kaso bi ci régime bi ñu génn dama ni intabihu jël leen te ngeen jëloo si seen xel yi xam nga lu ndir ña nekk ca gannaaw xeex ba ñëpp xam nañ leen dajaloo nañ lekk seen i million ba ni gërë géex affaire bi naqari na léegi dékkatul ci seen boor ñu bëgg a fab ñëpp ambaale ko xeex bi xeexu politique la pour contre ñoom Ousmane Sonko ko waa

ñi ngi dem di liggéey ñi nga xam ne noonu lañu war a liggéey lépp lu fi lëndëmoon da nga ko jubal jubbanti ko tegaat ko ci raay bi loolu mooy dëgg su fekkente ne nag fisc bi ñuy wax ne moom lañ leen xojee ak tamit ay contrat de de de lan de publicité yoo xam ne xëy na contrat yu nébuleux yoo xam ne bu ñu ko jëlee sëq ay millions jox ko ñenn ñi bàyyi presse bi léegi millions yooyu ñu leen doon jox man lii di wax ci presse bi man dama cee mas a am te ñun te pourtant sax am na ci tey ci kilifa yi ñu ngi solidarité ak yéen ñan ko doon jox ñu lekk ko ba mu jeex tey ji jamono soppeeku ñu ne na leen yóbbaale ñu dama ne delloo si leen xel yi su fekkente ne nag Ousmane Sonko moo leen di déranger wala régime bi moo leen di déranger daañu ko def te da ngeen fay fiscalité bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu